Real Madrid dàbbar ñi na ci digganteem ak équipe bi nga xam ne moo nekk Real Sociedad ci match boo xam ni daanaka coupe d'Espagne la doon doon match boobee jeex na tàkk nag Rodrigo bokk na ca footballkat bi nga xam ne moom lañ jàpp ni moo gën a xarañ ca match boobee ndax yër na kër gi ñaari yoon donte Real Sociedad ñu ngi doon góor góorgóorlu doon diima samp ab match nil boo xam ni benn benn gars yi mujj nañ ko am ci match boobee waaye Rodrigo mayul leen fun maanaam yekke seenum nàkk ndax moom mee di dafa ñëw tasaarewaat li nga xam ne mooy kër gi ci match bi nga xam ni Real Madrid doon na ko football tey ji nag l'homme du match bi daanaka moom mii di Rodrigo ci beneen vidéo bi nga xam ne danañ mooy classement boobee nga xam ne daanaka mooy Carlo Ancelotti classement nga xam ni daanaka da koo defaraat bu baax a baax ndax Fede Valverde da ko caa yokk ci excentré yi nag Vinicius Junior mi nga xam ni moom la teg ci côté càmm gi Vinicius Junior moomee nga xam ne sax match bi bi muy commencé see gars yi nañ ko mu nekk koo xam ne daanaka na mu dugg see baaxul ndax na mu dugg see ñi nga xam ne ñooy arbitre yi la leen bañ a jox loxo nuyu leen te it mu nekk loo xam ne luñ koy ñaaw la ndax football daanaka fo agré ak fair play war na cee mën a bokk waaye lu mu mën a joteeg arbitre yi ak lu mu jàpp ne arbitre yi dañu koy xeex wala arbitre yi dañuy xeex Real Madrid doole jotewut ak dara moom muy dugg si ci terrain bi jël ñetti arbitre yi ba ñeent kenn ku ci ne mun la jàpp loxo ree kaf ak yow si terrain bi loolee ko dimbali li nga xam ne a bàyyiloo xel ci li nga xam ne moo nekk lii di fair play kon loolee gone Brésil léegi mën naa am bu match bi euh, demee ba ñuy war a footballaat yeneen match loolee dina nekk lu muy jéggulu euh, taxaw jéggulu ko te it loolee bañ koo dalati benn yoon ndax loole erreur de la jeunesse bu muy euh, doxal ci moom mii di kii di Vinicius Junior compatriote am Rodrigo vidéo bii di ñëw dana ca bokk ak ki nga xam ne mooy Carlo Ancelotti mi nga xam ne taxawaayam fi mu toll nii la muy waaj mooy match contre Manchester City